wa Xudaamul khadim maa ngi leen nuyu ci turu sëriñ am saak sëñ Bass Thioro sëñ ibrahim Fall wa li ñu doon def léegi ni moy ci biñu ñu takusan tàkkusaan ba pare dafa am menn mbooloo ci poste contrôle bi ay goor ak jigen solo sol ak ay xalé yu ndaw biñu dajé nak bari lol dem na laaj len amna ci seen jëwriñ ju wax euh, xawma nan jaabo ñom ñoy mbolo mi touba doon tuddu ci buqal bu kaaw euh, dañoo feeñ dañoo bëgg a dem jumaa ja ci lool nag ci laa jokkook sëriñ Fàllu mbakke bi nga xam ne mooy daayira mu xaddimaatul xidma ci ànd guñ ànd ak polis noonu la demee bi àggee nag bàyyi nañ waa xidma interpellé leen waxtaan ak ñoom sëñ Abdoulaat Mbàkke laaj lañ leen lu ngeen dox ñu wax ko comme liñ ma waxoon sëñ bi nee nag loolu jotaguñ ci ndigal ci xel général de Mouride kon dangeen dem ba ci ñoom waaye nag dugg ci jumaa ji di filmer ak a caméra di def tawaaf moom loolu jotaguñ ci ndigal am ci ñaar ñu ne dañuy dem tàmbali naan allahu wahidun allahu wahidun allahu wahidun def ay slogan ah kilifa gi ni léegi nañ ma bàyyi man dong ma dem siyaare ji ñu bàyyi ko kenn keneen da ciy topp ñu bàyyi leen ñoom ñaar ñu dem ñu ne moom day siyaare ji mu demee mu kon ne nag def tawaaf ba mu doon def ni kenn mënu ko tee def tawaaf di wër def ay tawaaf léegi nag ci lañ jokkoo ak euh, police police ñëw avant ñuy ñëw tamit ak ñenn ñi jàpp nañ ci ak waa xidma ak man mii di wax ak yéen ak ñi ma àndaloon jàpp nañ ci juróom benn nit ak ki leen doon sécuriser waaw bi loolu amee nag police ñëw na def ci liggéey bu rafet daal leen di jël bi mu leen jëlee kaar bi ñu duggon ak mbolo mi mo wañi len ñom ñu dem ñibbi ñu wañi len li dess ci mbolo mi ñu dem ñibbi jébal nañ len fi nga xamne ne commissariat bi nga xamne ne commissariat jannat enquête bi mi ngi nek en cours ñi ngi len di gërëm di len sante di len ziaré jot na nak serigne Modou Kara ni doom la jot mu jot serigne Modou Kara ni sëñ bi nii yabalu leen santu leen ko defloowu leen ko ndax moom kat jumaa ji moom képp ku koy warmaal ñoom nga war a gën a warmaal euh, jumaa ji nga war a gën a warmaal te liñ def sant ñu leen ko def leen ko lépp lu ci yoon wax na ko yoon def maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf